xam ngeen ci suba ba léegi ñu ngi ànd bi ñu xëyee ànd ak sëriñ Mamor dem seeti préfet yaakaar naa ne am na spécialité ndax kat mbooloo mi moom foo ko nat weesu na ko gis ngeen bi ñu préfecture bi ñëwee ci salle bi fekk na mu fees dell waaye qualité. programme bi it moo gën a amati solo ak discours yi nga xam ne jëm na fi rawatina nag bi nga xam ne moom la sëriñ Mamor def ak ki nga xam ne mooy maire bi ñu doon delloo njukkal di gàtt mi nga xam ne moo décrété woon 8 juin yaakaar naa ne consul général bu Amérique it da ngeen discours bu am solo bi fi wax ak prix Cheikh euh, Mouhamadou Mourtada bi nga xam ne dañoo bëgg ñu di ko décerner képp koo xam ne da ngay dox. pour àddina bi nekk ci jàmm pour nit ñi nekk ci jàmm mbokk yi juin li ci gën a spécial te ñu remarqué ko mooy kër gi kër gi njëkk a samp ci dëkk bi Cheikh Mamadou Mourtada fàggu woon leen ko te jiitu leen ci nag moom ay kopparam kër googu tey am ñaar fukki at gone yi nga xam ne ñoo fi juddu ci jamono jooju ñoo taxawu bés bi ñoo doon def exposition bu am solo bii kon ngeen xam ne. le Serigne Mamor doon wax il nous faut une nouvelle génération général bu yas saa bu yas boobu judduwaat la ndax xale yi kat ñoom gëm nañ ne yoon wi ñoo ko war a yóbbu fu kawe te ay xale lañ yoo xam ne nii ñi ci ëpp fii lañ juddoo ñi ci ëpp fii lañ màggee fii lañ jàngee doon ay italien yu wër doon ay sénégalais doon ay mburit kon nga xam ne culture dafa baax ci doomu aadama ñoom nag ñoo war ñëw jël loolu tasaare ko ci dëkk bi nga xam ne fu lañ bokk ñi leen fi boole mooy seen waajur yi nga xam ne ñoo laxasaay woon ànd di liggéey ak góor yàlla ba mu fàggu fi kër Serigne Touba ñu jàngee fa ginnee fa mën a yëkkati ay xasida mën a jàng alxuraan te bu ñu demee nag ceekool kenn du leen raw xale yooyu mën nañoo rafet jot ci ne ëllëg mën nañoo jiite réew yi du ma ne réew mi mais réew yi ndax noonu la amee Amérique noonu la amee fépp kon juin leen di dellu di nuyu di leen massawu di leen ndokkeelit ci weeru tedd bi ñu génn weeru rama koor di ñaan yàlla mu nangul ñu liñ ci def te jéggaluñ ci sunu ay bàkkaar yépp ñu ngi sant yàlla bu baaxit mi nu may nu teewe wat bés bi te yéen ñëpp ngeen xam ne bii moo doon ñaar fukkeelu yoon kon mooy ñaar fukkeelu at yàlla nañ ko fekke at yu bare te am te am kàttan gi ñu ngi tàmbalee nuyoo bi nag ci kilifa yi fi nekk yépp ginnaaw bi nuyoo nag ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi sëñ Modou Mbaw jiitu ci wante mag ñi nga xam ne yëpp ñoo seq liggéey bi nga xam ne ku fi ñëw rek fekk leen fi ñu ànd ak ci liggéey bi te liggéey bi lépp di rafet di nuyu bu baaxit kilifa yi nga xam ne ñooy sunu ay bokk yi fi nekk ñu bokk sëriñ tubaay ñi di sunuy rakk ñi di sunuy doom ak kilifa ñi nga xam ne ñooy seex yi nga xam ne wala mbokk ñi nga xam ne kàngam yi nga xam ne ñoom la sëñ àndoon seeni waajur àndoon ak sëñ Touba ñoom ñëpp ñu teew fi ak ñu leen fi teewal di nuyu tamit këri diine yi fi teew wax ngeen ko sànq buñ xasee tudd yu benn rek doy na sëkk waaye ba tey wàññiwul dara nga tudd ñëpp muy ñi nga xam ne ñooy waa kër Cheikh Sidi Az Malik ak waa Laayeen ak waa Xaadiriya ak waa Ñaseen ak ñëpp ñi xam ne noo bokk kër gi bokk tool bi di nuyu bu baaxit fédération bi nga xam ne sëñ Moubarak wax na fi ànd ak Abdou Seck ak ñi nga xam ne yëpp ñoo liggi sekkul li nga xam ne moom ngeen di nos loolu lépp ñu ngi leen ci ndokkeel di bu baax it nag kilifa yi fi teew euh, bu fi jiitalee euh, le conseil Lamine Diouf bi nga xam ne moo fi teewal président de la République Macky Sall ak nuyu tamit son excellence sa Mamadou Saliou Diouf ak le consul El Hadj Ndaw ak le ministre Lamine Cissé ak député yi fi nekk ak consul bi nekk Milan soxna Rokhaya Ba ak Khady Sall mi ko fii teewal wante di nuyu tamit député yi fi teew Cheikh Abdou mi ngi fi teewal Pape Diop ak sunu doom Cheikh naa Mbacke ak ñi nga xam ne yëpp ñoo fi teew di gërëm taalib yëpp nag ñoom itam góor ñi ak jigéen ñi di gërëm di nuyu soxna Ami Samb mi nga xam ne moo jiite daayira Maam Jaara bi te ñu wax ne dañuy wéyal ñoom seen liggéey ci guddi loolu tamit ñu ngi leen ci ñaan yéen ñëpp ngeen jàpp ci ndaxte ginnaaw euh, yéen a ko bokk di nuyu bu baaxit nag xale yi ndax sànq jaar nañ fële ñu def seen ñu exposé ay yu am solo loo xam ne tamit ba tey ci liggéey bi la bokk ndax wone baax na lool dañ ci xaw a waxaataan naan sax ndax wax naa leen ko sànq ne ci fan yii rek ñu ngi doon ubbi benn faculté boo xam ne am na ci département boo xam ne wàllu tourisme la te tourisme diine la te ñun niñ ko définir nuñ ko niñ ko niñ ko seete niñ ko jàngatee dafa làmboo yu bari yoo xam ne càggi ni rek dangay dem ci dëkk dëkku diine wante dafa am loo fa war a jàngat di gërëm bu baax tamit euh, Lamine ñu ngi lay gërëm nga jot ñu président tamit ci li nga wax ci coono bi ngeen ci daj waaye su ngeen ci ñëwul woon it su kenn ñëwul woon it du wàññi dara ndax at bu jot ku nekk ñëw na ci délégation ku nekkit noonu la bu dee New York ak fii ku nekk ñëw na fi xam nañ xat-xat yi nga xam ne moo am waaye xëy na loolu lépp ngir wone rek seen seen seen seen seen seen seen pas-pas ci liggéey bi nga jot lañu ko sunu gërëm bu baax li ñuy gërëm bu baax mooy li ñuy répé waxaat rek toujours rek ndaxte jamono bi dafa xaw a jaxasoo lool waaye ñun li ñuy wax ci wàll googu mooy liggéey bi ñu nekkoon di ko liggéey danañ dellu soit ci yeneen waxtaan yi waaye loolu rek la ndaxte damay wax ne ci njàng mi dafa nekkoon lu jafe xam ngeen Al Azhar am na ñeent fukki ak lu topp juróom sëñ Mourtala moo ko sosoon mu nekkoon jamono yu jafe ñu nekk ci njàng mu ndaw mi mais amul woon benn këyit boo xam ne xale bi fi nekk dana ko nangu ñu jox ko ko muy loo xam ne dana xam ne am na niveau bi waaye boobu këyit du mën a am du ko mën a feeñal fenn foo xam ne danañ nangu ne lii loolu la mu tàmbale ci certificat ba ci BFM wàcce ba ci baccalauréat ñu nekk ci pendant lu jege ñeent fukki at wala fanweeri at ndax bi ñu tàmbalee am certificat xëy na bi école ba doxee tuuti la balaa su balaa 1980 balaa 1986 kat ci lañu tàmbalee di am ay BFM ak i ak i bac ba loolu lépp ñu nekk rek waxtu wu ne wax nañ ko ba tàyyi jànkonte yi ñu doon jànkonte ci affaire diplôme lu nekk def nañ ko ci. maa ngi wax ne professeur Iba Der Thiam bi mu nekk ministre liggéey nañ ci ak moom ndax ci amoon yéene lool waaye loolu lépp mësul antu def loon nañ ay programme lu ne def nañ ko mujj gi tamit liñ mën a def mooy xale bi am niveau bi moom amoon nañ waaye xale bi am baccalauréat mënuñu woon am benn solution lu dul bu bëggee continuer jàngam mu am bourse te bourse yi mënul jagle ay téeméeri téeméeri nit ñoom dañu demal seen bopp ci dëkki arab yi wala ci dëkk yi nga xam ne foofu lañ mën a defee seen enseignement supérieur buñ xasee bay demal seen bopp nag du ñun ñoo leen koy tànnal bu boobaa ñoo tànnal seen bopp dañ buñ dee tànn xam nañu dëkk yi nga xam ne mën nañ faa yóbbu suñu doom am ci kóolute tuuti wante am na dëkk yoo xam ne ñun bëgguñu fa yóbbu suñu ay bachelier ndax xam nañ la fa ñu kon jafe woon na lool ñu nekk ci loolu dama leen di war a wax liggéey bi rek ndax ñun li ñu seq di yéen du ñëw rek ngeen toog ci suuf nu dog kaw dañoo seq liggéey boo xam ne li ngeen di liggéey fii foog ñu feeñal nu itam lu tuuti lan nuy def loo xam ne te yéen noog yéen ko bokk loolu ñu nekk ci loolu biñ ci nekkee ba daj ci lu nekk fu ne ñu dugg fa mënuñu am diplôme bu njëkk nag loolu moo tax nag bi 2012 ñëwee yéen ngeen ñëw président Macky Sall ñëw ñu nekk di liggéey ci loolu liggéey bu jafe parce que liggéey jàng euh, du du loo xam ne da nga koy ay wax la rek ak i lijjanti ndax këyit yi ngay wone ni ki am na am na njàng mii bu fekkente ne def nga ko aw këyit woo bind rek te fekk moom eggul foofa bu boobaa lor nga àddunaam yëpp yàq nga ko yàqal nga sax sa aw xeet ndax kenn dootu am kóolute ci wàllu googu ñu jàpp xam ne état tamit du loo xam ne dangay ñëw rek yor sa mbaxana sa kaala ci wàllu njàng li ci des nag ñoom ñoo xam ñoom ñoom ñu liggéey ci loolu waaye njàng état mënu ci defal mënu ci favoriser nit ndax du loo xam ne moom day loo xam ne yëfam la kon ci àdduna wante ñu jaar ci anam yoo xam ne ñoom it ñu dégg déggal ñu lool ndax anam yooyu yëpp daan nañ ci jaar te daawul tax mu sotti biñ ci jaaree ba am bàkk bi ba won leen ne leen lii ak lii kat nii lay demee yàlla def ñu nangul ko mu nangul ñu bàkk loolu yaay bi loolu foog ñu di ko wax parce que dafa nekk lu jafe woon ci arabisant te moom moo ko def yemuñu foofu ñu dugg ci enseignement supérieur enseignement supérieur tamit du da ngay tëb ba rek am ndax dafa am ay yoo xam ne état Sénégal mun koo nangu njàngum diine boo xam ne mën nga am sa licence am sa master ba ci sa sa doctorat kooku état Sénégal mosu ko la mosu kii ko woon wala boog li nekk université Dakar te xam nañ na mu demee foofu kon loolu bu nekkati beneen liggéey beneen liggéey bopp ko ne xam ne ne gouvernement Sénégal def wàll ndax am na lu ñuy wax CAMES am na lu ñuy wax ANAQ loo xam ne ñoom ñooy saytu loolu te foog xam ba xam lii lu wér la am déet waaye lépp it état bi jàpp ci ba tey ñu am université Cheikh Amadou Bamba boo xam ne boobaak léegi léegi mu jógee fukki at man nag maa waxoon ne léeg-léeg nit la la ne lu tax du ngeen ko wax ma ne ko man maa def suñu slogan muy bu ñu publicité mais nañu informer nañ def ne mu ngi nii rek ku gis-gis waaye publicité léeg-léeg dafay niru commerce te affaire jàng dafa nekk lu jafe lu sensible loo xam ne du lu ñu du lu nit lijjanti du nit loo xam ne da ngay jekki-jekki rek defe ko kon nag fokk nga jottali ñu loolu président ne ko loolu xam jël nañ ko bu baax xam nañ ko wax naa ko sunu étudiants yi ndax alaasar wax nañ ko léegi juróom ñeen fukki junni la ci euh, décembre bi weesu ci ci ci statut ñu def ci bi quatre-vingt-dix mille neuf euh, euh, liñ bind ci ci kayit yu ñu ma jox man ci vingt-six décembre la ndax dafay boobaak léegi am na lu ci dolleeku waaye biñ ma joxoon ci la vingt-six la mu ngi nekkoon 90 99 552 loolu lañ ma jox ñu rapport bi nga xam ne moo nekk le 26 décembre yekk yokkwaat na nag ci décembre léegi parce que am ñu escroc loolu lépp ñi ci nekk ñëpp ñëpp ci nekk muy amul xaadir amul murit amul tijaan ñun xamuñu loolu parce que sëñ Tuubaa xamul loolu sëñ Tuubaa jullit la xam ak nit ku jëm fenn nag waaye nag waxu nag tijaan buy wax lu ko neex wala murit buy wax lu ko neex wala nangam nangam du loolu du ay wax ay affaire kon ay xale lañu yoo xam ne ñoom ñëpp jàng xam nañu ba loolu amee tamit bi ñu amee université tamit université bi jafe lool kon ni ma ko waxee yàlla def ñu état Sénégal agréé ñu ba fi mu ne ñu ngi ñu jox ay étudiants yoo xam ne am na ñu jot nañu am ñeenti faculté am nañu fukki filière ak ñett yoo xam ne mën nañ ci dem sama ay licence ak seen yu kaw yi bi mi ngi ndakaar bi mi ngi banque bay agriculture la ñu am na sax ko ñuy wax Sidi Diop defe naa mi ngi fi xëy na bu amoon kàddu sax danay gën a leeral loo xam ndax moom moo ko dund ndax am na ñum ci jël yoo xam ne ñu nga Allemagne ñu nga fu nekk ci ci pays adduna bi te ñooñu ñaari at rek lañ am ak lañ am def ñetti at génn te di liggéey liggéey boo xam ne dañ leen a naw ci làkk yi ba barrière linguiste bi ñu dind ñun ñun foofu fokk nga wax ñetti langue ak sa diine bi nga xam ne moom nga am loolu kon nga jotti leen ñu ko bu baax président président li ci desit mooy li nga xam ne mooy nun nun yéen ma dugal ci seen biir parce que damay wax ne alxuraan dafay wax euh, ñi nga xam ne euh, euh, dañuy dañuy def dañuy da ngay dañu da ngay dañuy def ba pare nga wëlbatiku dugal ca sa bopp ñu di la sant ca biir cant ga nga defe na yaa def alxuraan dafa tëkku ñooñu waaw dafa wax ne ñooñu euh, euh, falaa tax si banam bi ma basati min al azab ñi nga xam ne an yox moo bi ma lam yafaloo dañu leen di dañuy bëgg ñu di la sant ci yaa def nangam ne sëñ Mamor di la sant di la sant yow defoo dara nga bëgg ci sa biir na nga bëgg a xogale ko defe ne def nga ca dara alxuraan nee na ko lu dangereux li ci moom moo tax bu ngeen ñuy sant ñun danañ xam li ci biir parce que yéen yéen a def fii sëñ Moutala moo fàggu bés bi muy bisu lislaam boo xam ne ñëpp a ko bokk lislaam ko bokk wante bu fekkonte ne yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk tey ñaar fukkeelu at du ñaar fukki fan ñaar fukkeelu at kon boobaak léegi booba jamono ju jafe la woon ndax ba muy wax ngeen wut këri sëñ Touba am na ñoo xam ne ay taalibe lañu gëm nañu mais dañ ne ko woon lool loolu mënuñu ko def parce que mënul am ndax kuy luye foo nekk sam néeg di nëbbu mënoo am foo location kon naka ngay amee kër mais loolu buñ seetloo ñoom te moo nañ la ca nekk ca biir mën naa am sax mbirum yàlla la ñoo xam seen i biir ndax mbirum baatin moom yàlla dama ci natt bu bari xaw ma ci lu bari li ma mën a xam daal mooy logique ak lu ma mën a jàngat xam ne lii la analyse ko jàngat ko mu jeex mais ñoom bu ñu xoolee taarix histoire muy l'islam ni mu nekk woon am ay ay ay conquête yu bari ci biir Europe ndax lu baree bari histoire l'islam daanaka boo xoolee dañ koy jagle rek pays arabes yi mais am na même ay yonent yoo xam ne sax même ba ci ay balxiis ay façon yu dañu ne yooyu yëpp ci Afrique la bokk mais naar yi dañu fexe ba lépp lu taarixul islam wala diine sax dañ ko jël rek yóbbu ko ci seen seen bopp kon ñun te li ciy firnde ji rek mooy ku ne xam ne ne Éthiopie africain la ñu ay nit ñu ñuul la ñu te bi yoon gàddaay gi njëkk am nga xam ne yonent moo jabal ay saabaam ñu def ko foofu la ko njëkk a def boobu demagul dina te lim leen waxee du ñu woon ay jullit dafa leen ne woon ay nit a nga fa yoo xam ne kenn du tooñ ci ñoom te mën nañu sàmm kon ñun yàgg nañu am ay valeur valeur yooyu nag dafa mel ne moo continuer xëy na nit dana nekk ci mbir mbir te du ko seetlu wante weesuwul ñu am ay nit ay ñoo xam ne sëñ tubaab bokk ci kàngam yooyu ak nit yi nga xam ne mooy mag ñooñu ñëw ci dëkk da jamono yoo xam ne tubaab yi fii jóge woon parce que 1492 la la tubaab yi jële woon Espagne dem defe ne dàqal l'islam foofu ba jàpp ne lislaam mënatul a am ci àdduna bi mais lu tax Afrique nekk ci des ci ñu xeeb ñu ci loolu Cheikh Omar Fouti yu ñoom ñëw mag ñoo ñëw nga xam ne lislaam ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi dafa am ay xulafa amoon na ñu tudd al xulafa ar rachidun mais amoon na al xulafa al ghayru rachidin parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al xilaafa aman la loolu nag du ma ko firi parce que day garaaw wante li mooy ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa ak i saabam ak ña ca topp ak ña toppaat dégg naa sax benn hadis bu ñu naan nee na eh, xel ñi ñi yonent bi ña topp saaba yaag ña ca toppaak ña ca toppaat ñooy gën a xeet man nag mun ma xam comprendre loolu ndax ñi topp ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi rek ba mu paasee fanweeri at yi rek tàmm lañ noonu daal di commencé di jàdd soppali ko nga xam ne nekkatul euh, responsabilité mais pouvoir la moo tax toujours damay wax ne nitu diine diine ku ca jiitu yoruloo pouvoir mais responsabilité nga yore buñ la dee wormaal toog wormaal la dugg sukk nangam mais loolu ab yan la da nga a jàng mais bu ko def pouvoir boo xam ne da ngay daal di commencé rek di xogale ko soo ko defee rek da nga am problème loolu moo tax yëpp bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee saaba yooyu ak xolofaa yooyu yëpp ginnaaw bi mu nekk nguur luñ la mën a wax ci taarix ak luñ ko mën a rafetal dafa mujjoon nekk nguur boo xam ne ña fa nekk dañ doon nguuru kon loolu moo tasaare lislaam tasaare lislaam tasaare woon na ci àdduna bi fu ne mu demoon na fa ba ci Chine sax demoon na fa ndax ndax bi al yoon bi sallallahu alayhi wasallam utlubul ilma walaw bis-Siin kon xam ne kon Siin amoon na te kon xam ne foofu diine nekk fa woon kon loolu côté xam-xam bi sax la doon wax mais quand même tudd na barab boobu kon l'islam sori woon na ci àdduna bi bare na foo xam ne dañ ko nëbbu ci taarix boo duggee ci bu baax ci ay yenn yi da ngay gis ne daanaka dajoon nañ àdduna bi mais lan moo tax mu dem ba mujj mu naax saay mu niru ko fépp barab boo xam ne la woon ñu nangu ko xëy na yàlla def nañ ci sutura ndax xëy na am na ci barab yoo xam ne bu ñu ko nangoo xëy na jubul ay diine beneen fa nekk mu ne christianisme wala sofianisme wante ak lu ma tax l'islam moo ko gañe woon te bu fekkoon na l'islam comportement bii ngeen amee la am parce que diine luñ la ci mën a wax coow lu bari bari julli géeg yooyu dafay symboliser diine bi mais nekkul objectif bi parce que li am solo mooy boo dee jullee ko def loola neex te wax lu ne bés bu nga wax bés bu teen nga dugg karam kër bi tàng tàngar te waxoo am boo gisee développement ci boppam sax boo ko xoolee ba xool ko ci comportement la nekk mais lu tax réewi tubaab yi développé bu dara diine diine yàlla moo bind moo nu bind népp bu fekkee yow doo doo fen ba dugg loo war te dugg nangu ngaa liggéey soxoroo nangam nangam mais da ngay développé waaye bu fekkee lu ne sa yoon a nga ca te doo liggéey ba bi bëgg a tedd mais foog nga am problème kon comportement moo indi développement. loolu développement boobu nag mooy indi nit comportement boobu tam mooy tax ndax ni nit ki nekk nitu diine parce que diine du miracle boo xam ne dañ koy teg ci kam rek boo dee jullee ko woor ak naafila ak yooyu d'accord baax na mais yooyu sa yëf la yow kooku yow la ci yàlla di fay boo ko defee na mu la ko waxee parce que dafa da ko war a def sax far mais bu fekkee des nag nga xam ne moom ngay doxal ba àddina mën a dox ci jàmm ak doxeenu nit kooku moom nit ak nit nga ko mën a ci seq kon li ngeen def fii toujours damay wax ne bu leen xeeb lu rëy la ci diine ku xam taarix ku xam histoire ku xam it fu jamono toll ndax gis ngeen dëkk yu bari bu ngeen di béy ci béy naar yi la fa nekk ca alal kenn xamul nu mu toll ay milliards waaye lan mooy njariñ li ndax yeen ñii amul loo xam ne kenn ku ne amul loola doy sax ci sa kër kenn ku ne yaa ngi sa yitte lu mel nii wane na ko man mbooloo mi fi gis sax yaakaaruma wane dana fi am te man at bu jot ma ñëw fi saa bu ma ñëwee rek ne mbooloo mi fi mais lan moo war a wax loolu mais pas-pas ak ngëm ak bàyyi xelit ëllëg parce que nit ki nga xam ne alal taxu koo jóg jumtukaay la ko def jëmu ko jëf ko jëmukaay kooku foog mu réussir alal jumtukaay rek la mais du jëmukaay kon nag su ngeen nekkee ci barab yi démb ñu dem ci préfet ne ko Modou Mbow waxee ak ñi fi ñëwoon ak yeneen yoo xam ne ci biir la te bala ñuy ñëw sax dañuy gis ay kilifa kenn ku ci nag ñu la gëstu laaj ba xam lan mooy problème bi nga xam ne lañ nuy wax lépp moom même bu fekkee xam nañ leneen lu dul noonu sax ñun liñ nuy wax mooy sénégalais yi ne nit ñu baax la ñu xanaa loolu ko xam nañ ne mënul nekk ñëpp mënuñu baax mais lu tax ñoom ñu di ko wax parce que ñi ci ëpp ak seen comportement xam nañ ne ñii ku leen dimbale la ñu am seen problème lépp mais seen problème mu liggéey ak dund buñ dundee kon loolu du defoo ci nit kon ñoom xam nañu loolu kon la leen intéressé ci nit ki mooy jikko ak doxeen kon jikko jooju ak doxeen nag moo leen may lii tey te loolu tax moo tax lislaam bi ñu jàpp ne dañoo bari woon ci at lawoon na ci at lañu ubbi woon ko ci tur lislaam mais ñi ko ubbi woon ci tur lislaam dañoo dem ba ca biir ñu bëgg ci lislaam yi kese mais imaan génn ca parce que lislaam mooy li nit ki di def ci kaw boo sax man dama naa baat bi sax yàlla boote firaw na moo ko diabolisé laa ilaha illa llazi amanat bi banu israil wa ana minal muslimin kon dafa mel ne nit ñi def ay njaaxum sax ay islamiste la tudd mais du ñu tudd ay humanisme kon gëm-gëm bi nekk ci nit nit bu ko defee du mën a def lu bon problème bi bépp mooy foofu ñi ngi dégg yëpp ñuy reyante ak di xeexat ak di def lu ñaaw mais mën nañoo nekk ay julli mais gëmuñu jullit nag bu fekkee nee nga jullit nga te gëmu ne wala ba loolu mooy wax ji kon ñin ñi nu am ñu fexe ba nu gëm parce que damay wax toujours ne gëm du lu yomb du lu yomb moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ku la ne def naa ko bàyyi ko bu ca duggati boo doon xeex ba nit bëgg koo rey sax mu ne la gëm naa euh, ashhadu an laa ilaaha illa nee na la bu ko reyati donte sérieuxwul sax xam ne li du su sérieux sax amuloo droit pour rey ko parce que la la ca war mooy la ca biiram moom yàlla moo xam keneen waru ca dugg kon nag bu fekkente ne nit ki may na ko muy jullee ko woor ñëpp def ne dafa gëm loolu mooy problème bi nag koo gis muy julli ak de ko def ci kaw dangay ngay defee ne gëm na mais gëm am na loo xam ne bu ko nit defee du mën a def yenn ñaawteef loolu moo indi yëf yi boo gisee réew yi nga xam ne am nañu ay pétrole lu dul jeex mais lan la biñ nanguwut a def li am na ay milliards milliards dollars képp ku ko joxoon Sénégal tey dana ci mën a def lu dul jeex waaye def ko ci arme xeexante ko rey ko ci seen biir moo leen ko gënal waaye yàlla bàyyi leen ci lool may na leen lu dul jeex mais comme xalaatuñ ko ci seen bopp lañ ci xalaat foofu rek lay mujj moo tax loolu ñun tamit li ñu lijjante ba am ko fii am ko ci kilifa yu baax sëñ Touba doon xeex ci loolu doon xeex ci gëm parce que gëm yonent yi ci am am am am yonent yu bari dañ cee échec waaw yonent yu bare bare bari gëm lañ doon woote lu ne ñu def ko ci gis nga noonu koo xam ne nee nañ junni at yu manqué la jun juróom fukki at yi sax nee nañ manqué wu ko xëy na loolu la ci réussir mais junni at ku koy woote te réussir loolu <laughs> mais kooku échec nga fukki at képp ku ko woo nit te muy dëgg ci yow mais war ngaa réussir kon nag lu mel noonu kon tamit du kenn rek la am na ñeneen ñoo xam ne loolu sax am na amuñu ci loolu dañoo sax mujj décroisé bëgg salit kon ñun bu ñu amee ñoo xam ne sëñ Touba ñëw ak ñu baax ñi fi nekkoon fekk fi lu ne ñu fexe ba nit ñi gëm parce que nit ki gëm lan mooy tax nga def ko loo xam ne doo ko mën a pikiir nit ki doo ko mën a mais da koy won loo xam ne moom ci boppam bu dee nit dana ci jëlee loo xam ne dana ko mën a tax indil ak ngëm loolu nag moo gis ndax nag ñu gis ne kon yéen ñi lii ngeen def ak fii ngeen nekk lu am lu kenn mënu ko misaal wala nga xayma ko ci wàllu ni mu amee solo moo tax seen valeur yi ngeen am na ngeen ko téye bu baax na ngeen ko téye te xam ne bis bi bis yii comme niñ ko waxee élage nga fële xam ne New York américain yi ku nekk xam na ne du ko du trafic de influence moom mu ne su ko def ci américain mu ne su ko def sax ci nit ndax nit ñi sax léegi koo ci saax saaxi romb ko ngaat ngaat yi sax da lay xeeb bu la ko waxut ak bu la ko waxee bu la waxul booy tiitaru ci sa biir nga xam ne yow da ngay sogu sogu ci seen kanam mais boo leen ko dañ xam kon nag naka ci ñi nga xam ne loolu dañ koy jàng parce que am na xam-xam yoo xam ne nit lay jàngale bu la ne jàkk rek xam ci yow lu bare kon nag nañu gis ne kon nii nu def nga xam ne ñoom xam nañ ci ñun lu bari loo xam ne ñun xamuñu ko ci ba noppi di nu yaatal te état buy tëral dara ñëpp a ngi wax ministre bi fi nekk yaa ngi koy jàngat fii seen règle yu ci am ak ambassadeur mais lu mu ci mën di doon ñoom xam nañu li ñu def am na loo xam ne bu ko état homme d'état yaa ngi fii xam ne loo xam ne bu ñu koy def dañ koy masal ñëpp lañ koy defal mais dana am ca biir leneen loo xam ne mën nañ ko jàpp woyofal ko loolu nag moo tax kon ñu gis ne kon nanu gën a góorlu tey suñu liggéey jàpp suñu njàmbur bañ a dugg ci ay détails bañ a dugg détails sax bu fekkente ne bu dana dana sax di baax mais leg léeg euh, da ngay bàyyi l'essentiel continuer ci détail ba far fàtte l'essentiel loolu moom rek mooy problème bi waaye bu fekkente ne xam nga la war ba noppi la nga war l'essentiel yëpp ñaa ngi koy jéem ko topp kon détail aayul parce que léeg mu yóbbu la ci nga mën a fegu li nga xam ne mooy l'essentiel boo ko defee yooyu kon fii ngeen nekk da ngeen fe nekk nekkal fi sëñ Touba man ak yéen ak ñoom sëñ Touba beneen la leneen la ngaat ngaat ak lépp du loolu sëñ tubaab ki ko nekk ki nekkal mooy ki nekkal yàlla rek nga xam ne li nga nekk sa conscience la waaye du ca génn sugg sugg yooyu du loolu parce que léegi sax dafa mel ne contraire bi mooy bëgg a am ndaxte da ngay gis koo xam ne dañ ci biir yëf yi di def loo xam ne yow mi nga xam ne yow da ngay jàpp ne sax ab jàmbur nga ci ñi ko kon xam nga ne kooku bokkul te ñëpp xam nañu sëñ tubaab bi mu fi nekkee jafe-jafe yu amoon du tubaab yi parce que tubaab yi duñu ay noonam dañ ko doon may rek dañ ko doon permettre mu mën a liggéey ab liggéeyam bu ñu ko yóbbuwul woon ndaxte la tax lu tax liñ ko sonal li yëpp taxul muy doon bind parce que li mu doon bind bu fekkonte ne yóbbuwuñ ko mënu ko parce que bind yombul ku ciy bind nii ab téere rek lu ko ciy daj kon lu tax muy taalif yi taalif yi jeex bu fekkonte ne temps bi yàlla may mu war koo dund wala bi bi bi li mu ci bind mais xajul ci dund nit ci ko xam jàng kon loolu kon tubaab yi dañ ko dimbale dañ ko dimbale parce que loolu ñoo ko may mu def loolu wante téewul loolu kon nattoom dëgg dëgg dëgg mooy mooy ñi ko wëroon ñenn ñi parce que dafa am ñoo xam ne bi mu ñëwee dañu ko jël dañoo dañoo jël seen bakkan jox ko am ñoo xam ne nag dañoo nekk ay bokk ci biir yëf yi ba noppi soxare ko ba noppi seen pas-pas ci ngëm amul te kenn mënu ca dara ndax am na ñoo xam ne tey boo leen fekkee sama kër bu ma leen fa gisee kenn ñemewu leen ne ñuy bokku leen fi te moo na ña ngay fexe ci loo xam ne yow mi kër sax boo ko xamoon sax da nga naan lii mënul nekk ndegam lool nag ñun ñi nga xam ne ay tabaski rek la ñu kon as ci sëñ Touba mi nga xam ne dafa dafa yaroon ba diis kon li ko gënoon na sonal dëgg dëgg dëgg mooy noonu yi nekk ci biiram loolu nag damay wax toujours wax naa ko lu ëpp ñaar fukki at wala fukki at ci ndar waxoon ne bu te ne léegi juróom fukk lañ ci mën ndax léegi matul ay matul ay million te li ci gën a garaaw léegi watu nañoo wato watu ba dugg ci biir lu jafe woon nag la waaw lu jafe woon la ndax bu njëkk noonu mooy ki nekk ci bitti rek noonu bu nekk ci bitti nga di ko gis kooku amul problème parce que mën ngaa jàmmaarloo ak moom mais noonu bu fexe ba dugg ci sa biir kër jël bomb suuf ko suul ngeen toog di waxtaan mu jël bombam suul ko ci seen seen diggante mu wóor ko ne mi ngi xool heure bi ma kalaate bu demee bay bëgg kalaate mu ne sëñ bi ma dem ca wanag wa mu kalaate mu mën a ah, lii nekk ma fekkoon te fekk moom moo ko fa def loolu nag moo am ci yëf yi fi ne waaw loolu moo am ci yoon te yoon yëpp nag am na ci moo tax nag li may gis léeg-léeg ay ay ni ma tuddee rek ay sàmba sura bali nga dégg benn waay bu ne am murit la wax ci yoon tijaan wax ci kër tijaan loo xam ne yow mii ak yow mi bokk ci da ngay tuus ngay am gàcc mais lan mooy problème bi mais ku am sa problème boo bëgg a régler ab tuyaan na dina murit mais régler ko mais bul jël sëñ Tuubaa dugal ko ca moom yoonam nekkul ci loolu bu fekkee ne da bëgg am sa problème boo xam ne yaa ko amal sa bopp demal nga jàngaarloo moo tax damay wax seen gars yi ku ci dégg yenn yi mais bu dee tuyaan baa dégg am murit wax ko fexeel ba xam murit ba ko wax ngeen fexe ba euh, naturaliser ko rek seet nu ngeen ko def parce que lu affaire bi dafa am loo xam ne ay nit la ay calcul la parce que diine du calcul mais conviction la gëm-gëm la te dafa am ñax di calcul ñooñu nag buñ nekkee ci yoon yi fee yàq fële kee wax fële kee wax fële ka ca wax ka ca des mais boo leen xoolee ba ci biir da ngay ne est ce que duñ bokkul woon seeni maam bokkul woon ca loola bokkul woon ci ñi nekkoon ci kanam sëñ di ko jaxase bi la ma doomu sëñ ma di wax de wax ne ma euh, euh, loolu sax ku ne xam na ko sëñ Tuubaa bi mu nekkee njaareem lépp ma sax saxalaat ba bi muy bëgg a dem bëggoon a dem màkk nga xam ne sëñ Modou Moustapha sax yëgu ko tout saa rek la tubaab bi ñëw ne ko da ngay waaj kan moo ko ko wax. parce que kan moo ko ko wax déedéet li ci biir kër gi la tey mbokkam ñoom ñoo ko koy wax kon yooyu nañu ko bàyyi xel kon yéen na ngeen maandoo ànd leen nekk benn ñi fi nekk ci këri diine nga xam ne du ngeen ay wujj du ngeen ay noon te ñi nga fekk nekkoon di suñuy kilifa sëñ Tuubaa ñëpp a jaboote woon kon na ngeen gën a góorgóorlu ci liggéey bi. gën a ànd gën a nekk benn fédération yi ñuy wax dégg naa léegi ñu di ko wax ak sëñ Moubarak dañoo xër rek waaye man xam naa li may def man dama sawar wax naa ko sëñ Muntaxa bi mu ñëwee bi mu ñëwee dama ko ne man danaa la jox sama ñaari dërëm mais man dama dul laaj parce que man amu aw ma taalibe mbokki taalibe laa am comme sëñ ma leen laaj sama ñaari dërëm nag sañ naa la ko jox loolu sañ naa ko waaye nag la ca des ñun foofu la ñu nekk kon da ngeen a xër rek waaye dafa am yoo xam ne ñun tamit duñ ci dul sori ndax nit ku xërit bàyyi ko waaye daal ñu xam ne ñun li ñuy def euh, am na foo xa am na nu ñuy doxale am na ñuy fàggoo ba duñu sonal ci loolu kenn waxuñu ko nag pour damu parce que duñu damu ndax tiitaru moom fi naa ne jërëtul a def ci àdduna bi euh, amul amul benn sens kon nañu gën a góorgóorlu liggéey leen yii nga xam ne mooy fexe tamit nag ëllëg ngeen fàggu ndax barab yi su ngeen fi nekkee jamono bi dafay gën a naqari ndax tey immigration bi fi nekk tey mais mën naa wax ne sénégalais yi ci gën a tuuti sénégalais yi ñu gën a tuuti ñoom bu te ne dañoo soxla fukki liggéey yu ñu soxla mais bu fekkee nit dafa jóge ci beneen réew dàq nu ko mais dañuy jël kooka bu fekkee keneen nun noo fa nekkoon sax bu ñu ñëwee ko dàq dañuy dàq jël kooka bu ko defee kon day gën di metti kon nañu jëm kon lii ñuy wax ci ay logement ki ay kër bu leen ko négliger waaw bu leen ko négliger parce que am nañu daw dabaan yoo xam ne dëgg ak fédération yi ngeen def ko kër yi sëñ Touba yi ñëw kër l'islam yi ngeen di wax ngeen organiser ko waa organiser la ko parce que àdduna dara wóoru ci ndax tamit feeg téeméeri at téeméeri at nga xam ne ñëpp duñ fekk boo boobaa te yéen ngeen jëmbat fi loo xam ne dafa war a sax loolu moom ngeen war a xalaat ndax am na ñoo xam ne kat mbàkke la ñuy sant nee nañu mais am na kër yoo xam ne bu ñu ko jekkoon tey koy jaay te buñ ko jaayee dañ naan sëñ Touba Touba la soxla kër mais sëñ Touba lu muy doy Touba kër sëñ Touba àjjana lam soxla kër mais Touba moom Touba kum moom mooy dëppaay mooy foo xam ne dañ fay defaroo kon këri lislaam yii sànq lañ may déclaré beneen xaw ma dëkk ba ay nit yoo xam ne waaw bara wala dëkk la nga xam ne ñooñ ñëpp dajale ay nit yoo xam ne ku ne xam na ni seen kër yañ bàyyi Sénégal sax melul na lañ bëgg lu tax ñu dajale ay xaalis di ko jënd ci nag mais kooku ko ne xam ne dafa remplacé li fi li fi suñu mbokki jullit yi bàyyi woon bañ nangu ko kon loolu nag ke li sox dawaaman fa tooxaatin akono bi ba saliman bi islami xaddaana loolu sëñ Tuubaa ko wax te loolu bayit wu leer la lu nit jàng di jàng di eh, aw rek mantiq ak bayan war ngaa xam ne boobu bayit wu leer la ci luxal arabe kon nañu fexe ba gën a xam bu baax seen mission yéen coow li bari na coono bi bari na lu ne ñi ngi koy waaye lu ngeen man rek ci lu baax yéen a xam defalu leen ku kenn bu ma bu leen ku leen mën a naxit ci lu baax rek dëgg xam ngeen la ngeen di def ñun nag foofu rek lañ leen lañ wax yàlla moom kenn mënu ko nax nit ki nga xam ne boo ko ne sëñ Touba ngi nii damay wax léeg-léeg ñu ne bu am ndaw ko ndaa jógoon fi sax ne sëñ tubaa ngi nii ma jàkkaarloog moom nee na ku ne na ma indil dara man mii sax bu ma ko gëmut it danaa jox dara parce que defuma ko pour moom mais dama koy def pour lim ci tudd sëñ Touba bu ko defee nag da nga koy def ba noppi ñu defee ne ab dof nga sax far moo tax nag lu leen mën a teg ci façon bu façon phénomène bu nekk gis dégg nañ ko mais lu ci di def rek na ci na ko def ngir yàlla waaye boo gëstoo nag boo wutul doo doo demati fu bari dëgg nag léeg-léeg mu mu mu <coughs> mu jaadu nag waaw léeg-léeg nag nga tollu xoolaat bu baax waaye ak lu mën a xew li ngeen di def te yàlla tax moom ngeen xam ne jamono ji ku ne xam ne fi ngeen toll kenn amu ci lu la doy waxuma laa luy loo waxuma laa loo loo jëfandikoo sax bu bu baax kon loolu moo tax rek may wax ne ñun lu ngeen di def rek na ngeen ci jiital li nga xam ne moo leen di jëriñ yéen fexe ba barab yi am fexe ba gën a jàpp solidarité ngeen seet nu ngeen di fexe ba tënk ci loo xam ne ëllëg ci si biir seen i njaboot yi ñu leen di organiser yi état bi def ngeen xool ko bul ne rek état lu mu def baaxul mais état amul intérêt ci loolu da xool ba xam yow am nga ci njëriñ wala dara ndax politique politique bu bu bu la génnee ci ay valeur rek boobu waroo nekk politicien politiciens yi ñoom xamante nañ ci seen biir mais ñi nga xam ne ñoom jànguñu politique dañ ci dugg rek jël seen valeur yi sànni defe ne ñàkk valeur mooy tax nekk politique ñooñu xamuñu politique politique du loolu il faut nga nekk sa nga reste sa nga des nekk sa bu ko defee kon ñu gërëm bu baax ambassadeur di ko gërëmaat moom itam ndax moom itam euh, ku baax la te nga wax ko président ko jàmbaar lañu fii parce que fii yombul yombul ndaxte yombul yomb na ndax daanaka ku fi ñëw rek li nga bëgg ndax dajale bi lu tax lu lu tax mu am kon ku ne xam na ne lii bu doon mënees naa wax ne yomb na. waaye tey boo ko bëggoon a def ci loo xam ne du fa dëpp wut ak lu lu dul seen njariñ ñoom mooy lu baax. nga ko nangu parce que bàyyi sa liggéey daw ay centaine de kilomètres sonn say njaboot say lépp nga def ko te yàlla rek a tax <laughs> mais kooku yombul kon nag yàlla leen yàlla fay yàlla yàlla faj aajo yépp xale yi ñu gën leen a toppatoo xëy na li ñuy wax rek mooy daara ji sëñ fàllu euh, ak sëñ Cheikh naa ñoom daara yi yow itam Lamine danañ ko wax nañu waxoon nañ ko daaw ak ambassadeur ñu xool parce que barab yi kër yi il faut ñu am ci ñun état Sénégal li ñu am ci ay jàngal ay ay jàngalekat mën na ay junni mën na ay ay ay ay lu jege ñetti junni ay jàngalekat yi ñu tasaare ci dëkki àll bi wante euh, euh, ñi nga xam ne état bi ñoo ko ñoo ñu ko jëlal mën na ci ne rek lu topp dañu doon wax sax ni état bi foog ñu fexe ba kër yii ndax tamit ñi nekk di jàngale xam nañu jàmbaar lañu waaye dañu fee ñëwoon pour di liggéey bu fekkente ne état mën nañu jox ay jàngalekat yoo xam ne état da leen di gàdd pay ko moo xam nu ngeen koy réglé moo xam ci seen consulat yi moo xam nu ngeen di fexe nga xam ne ñoom dañuy féete war ak yar xale yi parce que xale yi am nañu solo am na junj na ko fi léegi ñaar fukki at ak léegi ak la ko jiit am na fi ñu fi judd nekk mu kàllaf te mën nañu def lu bari ci àdduna bi mën nañu dem ba nekk fi ay ministre mën nañ fi ba nekk ci ay maire mën nañ fi ba nekk ba dem fi nekk fi lu nekk ay responsabilité te bu boobaa lu bari dana am solo moo tax nañu dimbale ci ay jàngalekat yoo xam ne état bi xam ngeen nu ngeen di régler seen problème boobu ndax ñun dañu def ci ay jàngalekat ak nañuy doxalee ak li ñu seq ak yéen gis nañ ne amuñu ci benn problème waaw ah, wante loolu daal baax na ci xëy na loolu ambassadeur danañ ci gën a waxtaan ñu xool nañ koy organiser bu fekkente ne am nañu diplômé fii parce que jàngale aussi du ko nekk mën a jàngale waaw jàngale dafa am aw yoon mën nga am xam-xam lool te ko jàngal bootul mu mu sànku far kon loolu du dégg parce que jàngale dafa laaj nga dégg dafa am nga aw doxiin moo tax damay wax toujours suñu jàngalekat yi ay professeurs yi ma ne leen il faut ndax ñun am nañu ay jàngalekat yoo xam ne ci ci àll bi lañu nekk weer dana jot du ñu am sax day saan lu ñu lekk mais duñu wax dara kon jàngalekat dëgg dëgg dëgg xaalis tax koo jóg parce que mission la bu ko yàlla teg kon ñun tamit suñu amee ñoo xam ne bu ñu ñëwee fii loolu seen liggéey yaakaar naa ne bu dee ab jàngale mooy seen métier danañ mën a fexe ba yar xale yi bu ko defee ñoom dañ mën a tër programme boo xam ne bu xale yi bokkul sax seen programme kenn ku nekk ak sa programme bopp mën nañu fexe ku ne ñu la fekk si organiser ko daal ba nga xam ne danañ yar xale yi ndax ñun fexe nañ ba dindi yar laa gis defe naa ne Seydou Diop mi ngi fi waxoon naa ko léegi ñun bañ koy def saw noonu nañu amoon na sax ñu ne woon du am moo tax dama daan wax ne mais man boroom xam-xam bu naan dara du am man dama jig sax pour loolu parce que loolu kenn waru ko wax jéemal rek yàlla mooy amal parce que lu am ci àddina bi yëpp xam-xam bu mu ci am ñiy dem ca weer waag ñiy dem ca avion yeeg lépp xam-xam la bu yàlla indi te xam-xam boobu nit moo ko mën a xam lu comme lu mën naa am am na jamono boo xam ne boo ne woon nit ki am na avion lu mën a naaw dem ci diggante bu gàtt Souleymane mi ko defee nga xam dañ naan euh, euh, kii bi nu mu tuddati xudduwaa bi xëyam nu mu tuddati weer la nga xam ne weer lay def ni mu daan def ci weer di ko ñetti fan yu mel noonu kon nga xam ne dañ ko daan gént mënuñu woon gëm gëm gëm lu dem la kon te dafa mel ne kon loolu lépp ay ay ay gént la woon kon lu am kon lu nekk mën naa am moo tax suñu xale yi tamit nañ leen fexe ba yar leen yar leen ci diine ñu xam suñu aada xam suñu ay valeur mën nañoo dem ba nekk ci ay kilifa ci réew mi loo xam ne lu ñu fay defit danañ leen ci bàyyi xel mais buñ continuer nii rek def nii day mujj rek bu ñu demee tamit ah xëy na day ñun li ñu li ñu protégé bu ko li protégé woon euh, li taxoon lislaam tasaaroo yàqu fi xëy na loolu moom duñ ci àgg waaye daal mën naa teel a fàggu bu ko defee loolu lépp ñu am kon ak i gërëm bu baax a baax di gërëm soxna yi waxoon nañ ma ne dañuy def seen guddi gi waaye ma dimbali nag bu ko defee rek ñu des fi nag ak ñoom parce que tamit guddi gi na xam nga itam mag la ñu léegi dañu tamit toog fi ba xaaraat yéen nag mën ngi leen jàppale leen waaw waxoon naa ko soo deux la ma ne ko joxoon daal di waaye nag tamit xam naa ne toogati fi ba kii day jafe kon nañ leen jàppale rek ànd ci ak ñoom waaye nag ñun ñu libéré ñu nag ñu dem ko defee yàlla na la yàlla defal jàmm ba beneen yoon waaw ngeen baal ma àq nag kon jërëjëf kon jël mbokk yi na ñëpp teewlu ñu jàng xatmu bi jàng nañ fi ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett loolu ñëpp lu teew te lu waay bëgg nga fas ko duma gi ma fàttali yi day wéy incha allah ba une heure ay xéewal ngi fi ñu sant mbay ak ñu sant sax mën nañoo amin yaa rabbi amin barke borom Tuubaa yàlla na ko teewee déwén